ouvrir ba ñàkk ba sama seen travail laa soxla waaw loolu laay ñaan liggéeykat yi am jàmm te itam képp patron boo xam ne tiire nga sa retraité am fulaay na nga ko wërsi di ko lekk ndax liggéey 25 ans wala 20 ans ba pare nga dem IPRES amoo ci dara boobu bàkkaar kenn mënu ko si loolu métti sax sa yaakaar la boo gisee faa yi jaay ndox bi yëpp. problème mooy noonu seen jëkkër liggéey wala seen jëkkër li ñuy fayal ci riyaas la yem foog ñu ndékki foog ñu añ foog seen jabar di jaay ndox yëf am ñaaw na métti na. ban appel ngay lancé président Macky Sall. li may appel dama koy ñaan ngir yàlla na bàyyi kër mu gis oh, oh. si Dakar bu koy tëj tam na ko tëj sant Campenar wala Rebeuss ñu di ko seet moo gën ñu tëj ko kon nangu ay këyitam loolu ñaaw na ndax ñu fi jaaroon kenn deful loolu ku nekk mënoon na ko def waaye kenn deful loolu na seet yërmande te itam am na taalibe la gis nga réew lii ginnaaw ci Mouhamed gor amatu ci gor amatul ne gor gor la ñu ñàkk gor wet gor ne moo fi amatul ndax li nekk ci réew mi ñun ñëpp a ko dundandoo. wallaay wallaay doom lay dem ca làmb gi di bàkk jóge ci làmb gi di bàkkoo ko gën yéen li leen Macky Sall mos a wax lépp lépp lépp lépp ay ginnaaw kër la réew mi giñ naa ko ci seexal lislaam buñ ko sangut giñ naa ko ci Mohamed sangee nañ ko deret xam nga lan lañ koy sangee amat lay doon. ful bi bu ñu jógee billaay wallaay policiers yi mënuñu leen a téye waaye ñun suñu yaay ak suñu baay yi la ñuy bañ lacrymogène ni di leen xëy ñu koy waaye ñun mën nañoo jàmmantoor ak ñoom li ñu bëgg mooy ngeen dimbali ñu lillaahi wa rasuuli Macky Sall mii ngeen génnandoo en masse wax ko boppam mu abal ñu nee naa du doomu gor du doomu gor ndax yàlla doomu gor moomu ko waxkat la wax lépp lu mu ñu mës a wax ay fen la du dëgg lépp lu mu ñu mës a wax askan te et puis dafa am ay journaliste yoo xamante ni corrompu lañu journaliste yu ci bari ay corrompu lañu waaye waaye ñàkk nañ Sidi Lamine Niass ñàkk nañu Serigne Mansour Sy Djamil ndax sa li ñu sell man gëstu naa ko laa bokk Serigne Mansour Sy Djamil moo mos a taxaw assemblée na Macky Sall yoonu yu mu jël yoonu dictateur la te kenn faale wu ko ana mu tey bu leen sonn bu bàyyi ndax sa parce tout ça dafa ñaaw dafa ñaaw parce ñun dañ fa nekkoon ak Macky Sall en 2011 combat yi ñu fi def yëpp xeex yi ñu fi def ay jeunesse jeunes yu fi décédé ay xale yu ndaw man jour bu ñuy bu ñuy faat Mamadou Diop maa ngi woon commissariat grille yu commissariat bu bu bu golf parce que xam naa ne période boobu fi ñu tolloon si combat bi mënoon na am su doon am na ñuy dee si la ñuy bokk donc foofu la ñu tolloon pour suñu réew jàppoon nañ ne suñu gagné combat boobu. jamais de la vie kenn du xalaat ci taxaw nan day xalaat une seule fois nga dafay jalgati constitution pour def troisième mandat dafa rusu dafa ñaaw dama rus dama am gàcce ñu nekk di leem leemal di ñu yóbbu ci ay constitution ak ay xawma lu ñu mënti wax su dee projet la bu ñu bëgg a taxawal lañ ko teg ci suuf loolu du mës a jàll Sénégal te fii lañ ko wax et on l'assume bés bu ñu ko yëkkatee ne leen leer na ne ne lu ñu xeexoon 2012 dinañu xeex lu ëpp loolu kooku nañ leer seen bopp nañ koo teg si suuf nañu liggéey nag li leen fi defee bëriwul. nañu taxawu askan bi nañu bàyyi di teg askan bi ay ay coono nañu bàyyi ñuy jàpp di leen teg si kaso bi nañu liggéey pour Sénégal mu dem yoonam keneen ku ko mën a remplacer mu remplacer ko mais bu ñu nekk di xalaat naan dañuy jalgati suñu constitution parce que loolu du ñu ko mës a nangu te su boobaa dina wex xàpp si ñoom. Donc on est là pour lui Marius, pour sa libération illégale, je dis bien illégale. Et tous les Sénégalais devraient se lever pour aujourd'hui je viens ma bokkoon ci étudiants yi ñu jàppandoo woon ak Guy Marius Sagna le vendredi 29 novembre passé ñu am ni liberté provisoire le vendredi 20 décembre ñu génnee ñu man ak sama yeneen moroomu étudiant ak docteur Babacar Diop waaye tey laa gën a rëcc sama génn man parce que su ma sañoon toog ci kaso bi ba léegi kaso bi maanaam kent buñ ci doon am Macky Sall daf ñu koo dindil tey lañ gën a déterminé wu tey lañ gën a engagé wu ñu koy wax ni su fekkee dafa jàpp ni jàpp ñu ñun ay ndaw amagoo sax vingt cinq ans nga dugal dugal ñu ci kaso bi mooy tax mooy tax suñuy laaf damm donc il a euh, donc il a malheureusement pour lui il a créé des autres Omar Blondin Diop des autres Aline Sitoé Diatta waaye aussi également xeexkat yi nga xamante ni ñu ngi fi woon tey lañ gën a engagé wu di wax ni à partir d'aujourd'hui man dootuma dema si manifestation autorisée parce qu'on a affaire avec un président qui n'a pas un sens de l'écoute un président qui n'écoute pas son peuple c'est notre troisième manifestation pacifique nous prenons l'opinion nationale et internationale à, à témoin que ni le président Macky Sall est un président qui n'écoute pas son peuple de ce fait de ce fait dootuñu awateeg moom ci voie pacifique yi parce que notre patience et notre méthode pacifique ont des limites à partir d'aujourd'hui lu ñuy def duñ leen ko wax lu ñuy def duñ leen ko wax parce que ñun nekk ci réew mi te mérito fop nekk ci kaso yi nekk rëbës waxuma la rëbës waaye sax ñoom ñoo ko gën a mérito gii sa gii may saña waa ana Mame Mbaye Niang mu ñu doon tuumal vingt neuf milliards Prodac ana Siré Dia mu ñuy tuumal cent mille milliards poste waaw dama ne ana Aliou Sall mu ñuy tuumal six mille milliards sénégalais trente milliards cinq cent trente trois millions ko fële ca Bambilor 9 milliards 700 millions Nazir Olinda Samuel Sarr Abdoulaye Wade wàcc mu réglé wu Macky Sall bañ ko ko tëj kaso tey ñooñu nga xamante ne c'est des grands voleurs de ay corps de contrôle ay rapport épinglé tey ñoom ñooy wër ci réew mi di jaay di jaay jomba ñaaw Guy Marius un patriote un digne fils un homme intègre kii nga xamante ne nii tey fépp fu askanu Sénégal di jooyee suñu tournée gis Guy Marius Sagna ñu jàpp ko ne place am la. il se trompe lourdement parce que au moment où euh, ñu tëj Guy Marius Sagna moment boobu lañ créé des autres milliers de gii Marius Sagna te ci leen bokk soo ñu gisee nii wax nga xam ne dañoo engagé wu dañoo déterminé wu te lu ñuy def kafuñu si foowuñu si parce qu'il s'agit de notre avenir pare nañ nag pour lépp xanaa mu rey ñu ñu gas bu ñu xool suur ñu mais tant que ñu nekk suñu bakkan ak suñu wér-gu-yaram chaque jour vous nous verrez sur le terrain pour défendre les matériels moraux des Sénégalais parce que Sénégal dafa jot mu changer. mais itinéraire tey bi tey lan moo ko waral ngeen bàyyi fa ngeen daan jugee tey ngeen départ fii war a romb. itinéraire tàggat tàggatoo la pour tàggu Sénégal yëpp ne leen désormais wër nañ Sénégal yëpp fu nekk dem nañ fa dem nañ Rufisque dem nañ Thiès dem nañ place de l'Obélisque rond-point RTS bii passé dem nañ ICAT dem rond-point poste Médine tey ñu ni fii foire jëm Liberté 6 pour wax askanu Sénégal c'est fini léegi nag ñu fi nekk ci di demande ay lettre ay di dugal ay lettre d'information di demander euh, préfet boo xamante ne c'est un politicien dootuñu demander di kenn parce que ñun lu ñu war xam nañ ko comme dañ ñoom c'est des personnes non civilisées xaar ñu lu dul nit ñi génn ci mbedd mi kaas semer la violence pour ñu mën a soog a réagir kon nañ ko def parce que tous les moyens sont bons pour vaincre et nous allons vaincre. ñoo nekk au sommet aussi quoi qu'il en soit on sait que Guy Marius dafay déranger dafay déranger lu bëree bëri bëri donc lu mel noonu buñ ko nit ñi waxee am nañ euh, la jeunesse est debout on laissera plus faire quel que soit suñu courant bi comme boobu la moom ngeen di génnee Guy Marius Sagna ba tey defu ci benn. Euh, courant bi. Euh, Euh, pas plus qu'avant-hier yi may toogal foofu sama koñ nee nañ ma cette fois-ci facture yu ñu jot am na baisse am na wàññi ñoom ñoo ma ko wax ça reste à vérifier encore dëgg la ñoom ci ñoom mais mën na bañ a nekk ci ñëpp oh, c'est-à-dire il faut que les Sénégalais comprennent une chose ça c'est un combat c'est pas une bataille c'est pas une bataille, c'est un combat. Et on en a pour encore 4 ans. On est en Et les prochaines élections, c'est dans la durée. Donc un combat, il faut le mener lentement et sûrement. je pense qu'on doit multiplier ce genre de manifestations. Parce que Guy Marissagna, il n'a rien fait de grave. C'est un citoyen digne du Donc, euh, vu les coupures, euh, vu, les, vu euh, l'augmentation des prix de l'électricité, il est sorti en tant que Sénégalais combattant. Donc, agrippé devant les je pense que ce pas, pas un délit. parce que les gars de Aliou Sall l'ont fait les gars de Macky Sall l'ont fait donc pourquoi ils s'acharnent sur Guy Marius Sagna je pense que ça c'est un acharnement que Guy Marius Sagna euh, s'ils s'ils pensent qu'ils ont Guy Marius Sagna et que ça va que se calmer y a des millions et des millions de Guy Marius Sagna dans ce Donc, euh, s'ils veulent, attraper, je pense qu'ils n'ont, qu qu euh, doit aller voir Alussal, qui est un voleur, même Makidou aussi un voleur, sa femme, pareil, SSR du Sénégal, euh, Alussal, pareil. Donc, pourquoi il se charge de Guy Marissagna, qui est un, un digne fils du pays, Guy Marissagna, Guy Marissagna. lutte sera longue, peut-être, mais la victoire nous l'ont. Parce qu'on ne peut pas faire un peuple, un peuple décidé. Je vous remercie, mes frères.